dal leen ak jàmm mbokku internet ci mbirum faux billet boo xamante ne takk deri ña ngi ko teg loxo foofule ca mbaaw ñu xayma ko ci lu toll ci junne ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak benn ci milliard ëpp law xaalis bu baree bari waaye mbirum faux billet boobu nar naa indi coow lu rëy ci dëkk bi ndax bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di enquête li ko waral mooy ñañu tudd ca mbir ma dal lu doy waar la ndax ay kilifa lañu ci réew mi tudd nañ ca troupe politicien bu mag a mag bu ñu xam lool te ràññee ko ci Sénégal ànd ak loolu itam ab sëriñ mu ñu wax ne moom it dafa taq ca mbir ma ma ma nga ca biir ak ñeneen ak ñeneen mbir ma fañ koy xalaatee sax yemu fa gën naa doy waar ma ne ab sëriñ laa la wax bu sant njaay moom la ñu tudd ca mbir ma de kenn ca ñañu teg moo tudd turam wax ne dafa taq ci mbir mi rek ki ko xamle di Badara Fall jàpp ne moom mooy bopp ba moo jiite mbooleem kuréel gu ñu teg loxo ci mbirum phobie yooyu maanaam mooy cerveau ba moom Badara Fall nangu na ne dëgg-dëgg moom fekk nañ ci moom boobule alal te moo ko yoroon ca këram te xamle na itam ni ñañu ko fekk ñun mu nekkal ba ñu koy teg ay àndandooram lañ ci mbir mi te ca waxtu woowu ma nga nekkoon di jéem a waxaale ngir mën jaay mbir mi benn gambiyaan moom Badara Fall nag ba ko way takk der ya di déglu bañ ko laajee fan la phobie yi jógee ko wax na ne ma ngi ko jëndee fële ca Gambie dëkkub Adama Barrow wala Yaya Jammeh ja ci waay juy wuyoo ci turu Ansoumana waaye foofu la yem waxul Ansoumana fan la dëkk ak naka la ñu mën a def ba jot ko la mu ca teg nag mooy ne di xamal enquêteurs yi ne ne moom Badara Fall la mu doon jublu ca mbir moom mooy tàqalikook moom daanaka looloo waraloon mu bëggoon ko koo jaay ab gambien waaye yemul foofu ba tey muy wax naka la def ba jot ci yooyu le billet moom Badara Fall muy xam la ne ab sëriñ bu tudd noo bàyyi ñu bañ a wax bi maanaam daal njaay la sant lañ leen mën a wax moo ko proposé ne ko kaay ma jaay la billet noir yi ba pare boole la ak koo xamante ne mën na la ko raxasal ba mu set wecc moom it mu daal di cay jënd ñetti paquet paquet bu nekk ma ngi ko jëndee fukki junne yu tojul dërëm mbir mi nag buñ ko toppee mel na ne ña ca taq dañoo bari lool waaye juróom benn yiñ ci joxoñ baraamu tuuma moom yoon jot na leen teg loxo ba nëbb leen jant bi ña nga ca gardaaw yi waaw ñu yemandi ak yéen foofu Tactic TV dana leen ko toppal ngir indal leen ci ay xibaar xanaa ñu bàyyi leen rek ak laaj bi nii ndax dafa am keneen ku mel ni bu Bougazeli ku ñu war a teg loxo ci jamono ji mbir mi li ci kanam raw li bët